bismiraximi maa ngi door di marsiyal sadri sudur di wax lu mel ni li bi door lii ci wolof laa ko defar muhammadu mansoor sa turandoo mansuura maandu moo di gor moo di gar mi mooy garar simmi ñi dal ci moom di goru te gëstuwul amul naqar alxaaji Mansour si Malick Mansour danoon bu kenn xuloo bu kenn tontu kuy jaloo ku war gileem waral filoo mu tiim la gaañi fii du suuraani won na ngeen juboo nanu àndandoo te dendandoo mel ni birig bu ngeen dëndoo muy seeni buntu nas jàngar mm. alxaaji muhammadul mansuur si maalik ndigal jub te set ca leer lii lay digle day boroomi leer suura waxtu simireer la daan jaamu yàlla jëm fajar ñu baax ñépp am nañu tiis ngir li nu yenu dafa diis sang bi bu ñu sañoon doo fi ni diis waaye dogal ba daa dëgër Muhammadu Mansoor ngir weeru mat wa dafa suux jantum ngeneel ba nee na mariix ku jooyu lit gis ko jar sa turandoo man suura fab ay darajaam sànni ca àll mel ni jaam doo dox di màcce mel ni jaan doo saf lu mel ni doomi gar Muhammadu Mansoor si Muhammadu Mansoor Mansoor a ay darajaam sànni taal mel ni jaan doo dex di màtte mel ni jaan doo saf lu mel ni doomi gar muhammadu mansoor sa dem gi mat nay xalaat ba xol yépp a ngi nii malaat sa dem gi mat nay xalaat ba xol yépp a ngi nii malaat Mamadu li nga yoroon ku koy jëlaat ba tax ñu tàggoog suñuy naqar miskin yi nee nañu xalaas ña nga naan fu ñuy jëleeti ay palaas ku ñuy yéegal deuxième classe ca may ñu can gu yóbbal jabar ana ku sopp Cheikh El Hadj si Malick alaaji Maalik moo la jur mooy sana jaay te moo la yar moo la xamal yoonu di kar si mat nga doora samp kër